على الحبيب المصطفى محمد وآله المؤيدين بالمدد والسر أهل قل هو الله أحد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى mbokk yi tànn télévision bi di Kéwoulo TV di ko wéttalikoo fu ngeen mën a nekk ci goxi àdduna bi ñu ngi leen fay fekk di leen jox ñi ngi ñëwati ak yéen ci suñu émission bi di jotaayu diine ji yow mbokk mi topp émission bi nag maa ngi lay digal ginnaaw bi ma digalee sama bopp ñu bokk xam ni li ëpp importance ci dundu nit ki mooy mu fexe ba farata yi ko yàlla sant mu xam ni ñu koy defee te def ko ni ko yàlla bëggee waaye mu bañ ko def ni mu ko gërëmee moom lu mel ni julli war na ci kenn ku nekk ci ñun mu xam farata yi xam sunna yi xam avant ngay julli la ca war ci laab ci njàpp xam tamit waxtu julli kañ lay commencé kañ lay jeex xam boo amee ay boru julli naka nga koy faye xam li nga xam ne moo dagan ak li daganul ci ay wax ak jëf ci biir julli gi ba ci mboolem jaamu yàlla yi benn bu ci nekk rekk nga xam li koy wéral lu mel ni azaka lu mel ni koor lu mel ni aj makka ba ci sax vie conjugale lu mel ni jënd ak njaay lu mel ni l'occasion bi nga xam ne mooy dox suñu diggante yooyu yëpp yow mbokk mi topp émission bi incha allahu rabbi dinañ ci ñëw ak yow ci anam bi mu gën a matee anam bi mu gën a leeree ànd ci nag ak ay boroom xam-xam tey nag ñi ngi invité mbokk mu baax mbokk mu tedd di boroom xam-xam di jàngalekat di éducateur di oustaz Babacar Niang sëriñ bi ñu lay dalal ci sa télévision bi di Kéwoulo TV ñu ngi bëgg a waxtaan ak yow ci ay point ginnaaw bi nga nuyoo mbokki téléspectateurs yi alhamdulillah alhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzilihi wa zakir fa inna zikra tanfau almuminin والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله أشرف المرسلين وعلى آله وخلفائه وصحبه أجمعين أما بعد بك جلتي غناو بنيو سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى نيغي لين دي زيارة دي لين دوكل دي لين بالو حق دي لين بال دي زيارة sunu bopp waaye sunu kilifa muy Serigne Babacar bi ñu àndal ci plateau bi di rajo bu télévision Kéwoulo TV di am contentement bu baax a baax ci ànd ak yow ci émission bu mel ni bu aju ci wàllu diine bu aju ci wàllu sharia al waaye ziyaara sunu mbooleem ay kilifay bopp ci góor ak ci jigéen ci mag ak ci ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi macha allah ñu ngi lay fay nuyoo di la delloo ziyaara mu mel ni wax dëgg tey mbokki téléspectateur yépp incha allahu rabbi dinañu bégee dinañu kontaane jotaay bi nga xam ne moom nga nara am ak ñoom baba kër Niang li ñu bëggoon waxtaan ak yow nag tey mooy lu aju ci wàllu laab dañuy gis ne lu am importance la ci biir chariatul islaamiya mhm. waaye nit ñi dafa mel ni bàyyi wuñu ko xel wala boog importance bi mu am joxuñu ko ko mhm. ñu bëggoon nag tënk ci ay point lu ñu temps bi may rek ñu wéttalante seeg mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñooy topp émission bii di jotaayu diine ji oustaz Babacar li ñu bëggoon a xam mooy laab mooy lan boo ñu doon wax laab tey laab mooy lan waaw sëriñ Babacar macha allah euh, tànnal nga ñu mawdua bu am solo ci mhm. diine mhm. mawduu boo xam ne mën naa ne mooy baaxal nit ki ci wàllu diineem xatta sax ci wàllu àddunaam muy laab laab chariatul islaamiya moo ko farataal ci jullit bi euh, bu ñuy expliquer lan mooy laab danañ ko expliquer ci ñaari anam موي تي اللغه بي لاب موي لان واي عند الاستلاع موي تي شريعه بي لاب موي لان بو فك تي اللغه الطهاره النظافه لاب موي ست ست ست موي لاب لان موي ست موي nga dindi -hmm. ay tilim tilim yu aju ci sa yaram lap bobu mm -hmm. dafa am at tahara al -hmm. wa at tahara al -hmm. dinañu expliquer insha allah buñu ko temps bi maye ñaar yépp muy at tahara al hissiyya wa at tahara al manawiyya insha allah kon li ma la mën a wax ci luga bi mooy laab buñ ne tahura ashay tuhuran mooy an an mooy dindi sobe su fekkee indal istilaax lan mooy laab pour nga xam ko ci chariatul islaamiya istilaaxiyan ci leeral mooy raful xadas yëkkati am toj wa izalatu najaasa dindi sobe sobe bi nag dindi ko mun mm-hmm. na nekk ci xades mm-hmm. mun na nekk ci xabas mm-hmm. dindi ko mën na nekk ci ndox waaye yëkkati ko mën na nekkee ci tiim waaye dindi ko aussi mën na nekkee ci sangu ak yeneen yu aju ci loolu kon laab daal suñ ko tënkee ci leeral ko mooy laab mooy yëkkati sobe waaye dindi mhm. eh, sobe mhm. yëkkati am toj mhm. ci mbooleem anam yi ñu koy defee ci wàllu ndox la wala ci aju ci wàllu tiim macha allah macha allah oustaz Babacar ci sa biir wax xamal nga ni ñu laab dafa am ay xeet dafa am lu ñuy tuddee laabu xabas am lu ñuy tuddee laabu xadas loolu nag bëggoon naa nga gën ko leeral mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy topp émission bi di jotaayu diine ji lan mooy laa laabu laabu xadas waaw mooy lan waaw Oustaz Babacar mhm. laab mhm. dafa séddalikoo presque ci ñaari xaaj mhm. am na lu ñuy tuddee xadas muy wàllu toj lekk yu aju ci doomu aadama di ay euh, euh, yu ko yàlla bindaale xadas yooyu mhm. soo ko defee lu mhm. mel ni mhm. euh, al bawlu wala euh, ar riix wala yu ci aju al bawlu mooy euh, yi nga xam ne tuur ndox waaw tabaarakallah comme ñu bal ñu ci kàddu gi xades am toj la boo xamante ni nii doomu aadama bi la ko yàlla bindaale mu war ko yëkkati dafa am hadas nak ak khabas bu ne hadas moy tojle danaka dañ koy tuddé ay tojle yu maanaa yu ndaw yi dem toilette yu mel toilette ak yu aju ci yoyu waaw waaw bu fekke khabas nak mom mo gëna xoot mom da fay aju ci walu آه، الجماع موي والو سي والو بانيخ والو بانيخ ولا والو جيوانتو تي والو بانيخ ولا يو اديو تي ميل نونو لولو موي ديفيرون انتر الحدث والخبث حدث دا فاي اديو تي توج يو نداو نداوان ييغا خامني موي غار دومو ادم بو فكه خبث دا فاي اديو تي توج ييغا خامني ولا بوك اديو تي والو بانيخ Euh, bu ko amee bu boobaa loolu la ñuy tuddee al xabas mm-hmm. kon mu mel ni daf ci am boo xam ni mm-hmm. moom njàpp kese moo ciy doy mm-hmm. waaye am boo xam ne nag pour mu yëkkatiku il faut borom dafay sangu sangu set macha allah sëriñ bi oustaz Babacar mbokku téléspectateurs yi topp émission bi macha allah xam naa ne bëgg nañu ci li nga développé ci li nga détaillé nii ci wàllu lab dañuy ñëw rek ci suñu deuxième question kon mu mel ni làpp kon wàccuwaay boobu la am ci lislaam mhm. bëggoon nañu xam importance su laab dëgg-dëgg bëggoon nañu ko xam ci jaam bi nga xam ne moom moo war a taxawee yenn jaamu yàlla yi avant mu koy taxawee dëgg-dëgg laab ndax mu mën ko def ni mu ko war a mën a defee incha allah. waaw sëñ Babacar macha allah sa deuxième question bi aussi am na solo lool. muy importance su laab. ahamiyatu tahara. fi islam. fi sharia al islamiya. sëñ Babacar laab am na ay importance yu bari. yu ci doomu aadama bi mën a jàngatee. waye yu ci shariatul islamiya balale nito bari na is aussi tam ay rafet rafet yu aju ci walu lab ala sabil al ikhtisar ci liñu ci meuna teunk rek moy lab bolé gimu bolé moy al jam'u bayna taharatul jismi wal qalbi laab moo ñëw boole mhm. euh, dinañ ko expliquer incha allah muy mhm. euh, at-tahara al-ma'nawiya bi ñu doon junj mhm. junj ci début bi kon waaye doomu aadama bi bu setee bu laabee ci saa si rek da ngay gis mu yëg ak cawarte dangay gis mu yëg ak tranquillité da ngay gis mu yég yi nga xam ne moom la yàlla def ci doomu aadama rawatina nag su laabee ba war a jàkkaarloog boroomam bi nga xam ne moo ko bind mooy sentiment bi muy am ci màggaayu borom bi subhaanahu wa ngir lan deelanteeg moom moo xam dafay julli moo xam dafay euh, dafay naafila mm-hmm. moo xam dafay wérd moo xam dafay aju jàng alquran wala mm-hmm. lépp lu mm-hmm. aju ci wàllu jaamu yàlla mm-hmm. sentiment wala boo yëg-yëg boobu muy am te mu dëgg lool mi ngi ko déparé ca ba mu laabee loola bokk na ci importance su laab beneen bi mooy euh, taxaququ nazaafa alchaxsiya wa tushaddidu alxayawiya maanaam nit ki su laabee da gis ne moom ci boppam rek euh, am na yëg-yëg ci boppam ne mhm. mel na nu mu melul woon avant muy laab mhm, macha allah sentir na lu mu sentirul woon avant mhm. muy laab gis nga sobe dafay déranger doomu aadama dëgg dëgg sobe dafay déra doomu aadama rawatina jullit na moo tax bi mu laabee da ngay gis ne yëg na leneen lu bokkul woon ci moom loo xam ne wuute naag avant muy laab mhm. kon loola itam yëg-yëg yooyu rek bokk na ci importance su laab mhm. beneen bi mooy mhm. doomu aadama aussi su laabee euh, laab gi mu laab rek dafay wane euh, cofeelu yàlla ci moom macha nit ki su laabee rek jàppal ne yàlla sopp na ko inna mm-hmm. allaha mm-hmm. yuhibbu tawabina mm-hmm. wa yuhibbu al mutatahirina macha allah macha allah euh, beneen bi aussi laab tegtal la ci ne euh, ci sixatul iman dalilun ala sixatil iman mooy altahara dalilun ala sixatil iman tegtal la ci wéru ngëm yàlla waaye bi ñuy daaneelee sëñ Babacar mooy laab حماية المجتمع من الأمراض وي بخصل الأعضاء من الأوساق والأطربة جسنا اللاب دفاي آر سوسيتي بي تي أي فيبر دفاي آر سوسيتي بي تي أي تليم دفاي آر سوسيتي بي تي والو بوسير أك يونيمل نحن سيارم سو تقي نغا دم جاب لغي لاب دنجي جسنا آر نغا سبوبو تي والو فيبر ولا تي والو تليم نغا خمنا من نلا يوبو تي غالان كورو macha allah oustaz Babacar leeral yi amatina solo kon mu mel ni rek importance su laab bokk na ci dafay sawarloo cëru jaam bi nga xam ne moom moo jóg ngir deyaaleeg boroomam comme ni nga ko expliqué moo xam ci julli la moo xam jàng alquran la walla mbooleem xeetu jàmm yàlla rek boo xam ne moom jàmm bi namm na ko def kon laab gi muy laab dafay sawarloo ay cëram sawar sawar xolam mhm. ba mu mën a teewlu boroomam mhm. te loolu nak li epp solo ci jaamu yalla bi nga xamne ne bi mi ngi koy def ci kanamu mhm. mu mel tamit wax nga ni fay setal fay setal nit ki ci tilim tilim yi nga xamne moy aju ci walu yaramam kon jambi bi saa labe ci waxtu wu da mel melni rek tilim yoyu nga xamne mo takkon ci yaramam jaam bi tekkal ko nak mom mu mel ni dañuy ñëw ci troisième question bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis ne at-tahuru chatrul iman oustaz Babacar xadis boobu bëggoon nañu nga dimbalañu ci rek indil ñu ci ay leeral indil ñu ci ay jàngat ndax wax dëgg yàlla xadis la boo xam ne am na maana yu xóot moo tax daal ñu bëggoon rek nga indi ci ay jàngat indi ci ay leeral lo xamne mbokk téléspectateurs yi top émission bi di jotay diine ji dinañu ko bégee dinañu ko contané dinañu ko xamé tamit muy lo xamné dinañu ko yobbalo inshallah rabbi ma sha allah sëñ Babacar amatina solo ci معنى الحديث بيغا خامني موم لا ne بي صلى الله عليه وسلم جانغالي wa والو لاب مو ملني ا توجور ريك nahnu ummatu muhammad li ñuy puukare woo ñun sallallahu alayhi wa mooy sunu yene yonent dafa wuutee ak yonent yi fi jiitu woon alayhim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci kéemaanam mooy euh, fasaaxa bi mu amee woon balaaxa bi mu amee woon ci ay waxam malgré nag ummiyu la laa yuxsinu alqiraa wala alkitaaba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jàngul mm-hmm. waaye dafa lottuloo ñi jàng mm-hmm. mm-hmm. mbooleem ku fasaaxa woon mbooleem ku ku ku déggoon balaaxa ba ñu lay yéem ci jamonoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lottu moo tax bokk na ci kéemaanam yi gën a rëy mooy jawaamiul kalim yonent bi mooy jawaamiul kalim moo dajale baat yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ak aw xeetam ci mm-hmm. baat yu gàtt yu làmboo ay maanaa yu gudd mm-hmm. loola sallallahu alayhi wa sallam rek la ko yàlla defal ba tax na moo tax bëri na ay mm-hmm. waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne dafay nekk wax phrase yu gàtt lool waaye làmboo ay maani kathiir loola bokk na ci xadis bii ñuy bëgg a expliquer bokk na ci yeneen xam nga euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. mi ngi naan mhm. euh, afdalul amali mhm. afdalul amali adwamuha wa in xalla gën ci jëf yi mooy add wa muhaa bi nga mm. xam ne moo gën a sax wa in xal la mm. xam xadis boobu gis nga ni mu gàttee mooy jawaamiul kalim la mm. waaye làmboo ay maani kathira mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. moom xadis bi aussi ñuy ñuy ñuy bëgg a expliquer ci la bokk mooy at-tahuru chatrul xadis la boo xam ne nag euh, boroom xam-xam yi wuute nañ ci ci maana ma maana al waaye ci gàttal li ñenn ñi wax ci borom xam-xam yi aju ci wàllu mazhab al imaamu Malik mhm, mhm. nga xam ne moom la ñuy topp mhm. ci mazhabu Malik la ñuy roy euh, lenn ci borom xam-xam yi aju ci madhabu imaamu Malik nee nañu li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yonent bi dafa ne attahuru chatrul iman laab mooy genn wàllu ngëm yàlla ñi ne waw al iman fofu est-ce que dang koy firé iman biñu xamone ñi ne waw al iman la ñi ne dedet al dang koy firé as salatu moy at tahuru attahuru al iman mooy a attahuru satru salat moy genn walu julli ndax lap moy wéral julli ñi ne waw ñi ne dedet waaw su fekkee da nga ko firee a tahuru chatrul iman muy julli mooy genn maanaam laab mooy genn wàllu julli ñooñu dañ ko delloo ci ayatul qur'aniya bi yàlla di wax naan wa ma kaana allahu li yudia imaanakum ay salaatukum al iman foofu suriwul firiwul iman waaye as salaatu lay firi ñenn ñi foofu lañ ko delloo ci ne kon a tahuru chatrul iman mooy laab mooy genn wàllu julli ñi ne moy mooy al iman ci bopam lay firi ndax dañ ne al iman borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne al iman bidun wa sab'una ñine bidun wa sittuna fa afdaluha qawlu laa ilaha illa allah wa adnaha imaatatul adaa ani tariq ñi kon imaan suñ ko waxé fi ci yenn borom xam-xam yi dañu ne moom firiwul firiwul julli wayé iman ci bopam lay firi ndax bo xolé doomu adama ñaar moko composé muy muy muy muy al jism wala ar ruh li aju ci yaram bi ak li aju ci ruh bi xolal seigne Babacar su fekke exemple bi ma lay jox ci ne al im at tahuru chatrul iman maanaa laab mooy genn wàllu euh, imaan mooy mm-hmm. genn wàllu ngëm yàlla mm-hmm. xoolal tey su fekkee da nga déplacé wu nga dem mm-hmm. euh, fu mel ne euh, ambassade ambassade boo mën a dem pour nga déposer foofu sa visa waaye defaral nañ la sa visa jox la ko mais visa bi amul tampon est-ce que sa visa boobu dana valable. déedéet wala bu fekkee passeport la est-ce que passeport boobu su amul tampon. tampon bi li muy ndaw ndaw ndaw ndaw. Mhm. moom mooy tax visa bi valable nga mën a mhm. voyager fu la neex ci àdduna. Mhm. waaye passeport bi li muy ndaw ndaw su amul tampon tampon boobu aussi. Euh, mooy tax mu valable. kon julli. su fekkee moom la yàlla di njëkk a régler yowmal xiyaam. te li nga xam ne mooy tax mu wér muy laab. laab moomu su fekkee amul ci julli julli wérul bu mhm. amee ci julli julli wér mhm. kon laab boobu chatrul iman mhm. mooy genn wàllu euh, ngëm yàlla parce que soo soo soo laabul mënoo mënoo mënoo mënoo doo julli te boo julliwul toppoo yàlla te yàlla nee na ëllëg man julli laay njëkk a réglé mu mel ni aussi ci gàttal foofu rek euh, kon da ngay gis ne laab foofu dafay aju ci wàllu euh, almaanawi mm-hmm. waaye dafay aju ci wàllu mm-hmm. euh, alxissi muy mm-hmm. wàllu yaram ak yu ni mel incha allah macha allah oustaz li nga wax rek ci sa commencement wax dafa tënk lépp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko jox jawaamiul kalim mu gën a fasaaxa ñépp te musul jàng fenn bañ na ko sax ba ummi yu la mm-hmm. comme ni ko Muhammadul Buusiri radiyallahu anhu di waxee ne kafaaka bil ilmi fil ummiyi mucjizatan mm-hmm. fil jaahiliyati wa ta'dibi fil yutumi koo xam ne ummi yu la waaye jàngal ñi fi raw mm-hmm. jirim la waaye gën a yaru ñëpp kon loolu dafa doy sëkk mucjiza macha allah ustaz Babacar ñi ngi lay gërëm ci macha allah li ngi fi leeral am na solo trop mu mel ni dañuy njëkkalanteek waxtu wi rek ci sa commencement wax yaa ngi ñuy jund al tahaara al xissiya wa tahaara al maanawiya loolu daal lañu bëggoon nga indil ñu ci rek leeral lan mooy laab extérieur ak laabu intérieur loolu daal moom la ñu bëggoon rek nga indi ci leeral mhm. mbokki téléspectateurs yi topp émission bi mhm. incha allahu rabbi ñu déglu ko rek incha allah mhm. tabaarakallahu euh, sëñ Babacar laab dafa am ñaari xeet a tahaara nawayni am na laab boo xam ne dafa aju ci wàllu euh, extérieur yi doom doomu aadama bi muy wàllu yaramam waaye loo am na laab boo xam ne dafa aju ci intérieurement bi muy mhm. ci biiram mhm. loola soo ko boolee rek mhm. da ngay matal doomu aadama da ngay matal euh, maqsadu sharia al islaamiya jubluwaayu sharia al islaamiya mi ngi aju ci intérieur doomu aadama bi waaye mi ngi aju ci extérieur doomu aadama bi macha allah li aju ci wàllu bitteem muy yaramam waaye environnement bi. Mhm. bi mu nek mhm. waye place bi mu nek mhm. waye aussi waxtu wi. waye mom ci mi bopam loolu lepp ci bitteem la bok waye su fekkee da nga aju ci wàllu euh, intérieurement ci biram mom yaangi laal bi. waye yaangi euh, xol ba. parce que dañ naan doomu aadama al insaanu bi asxurayhi doomu aadama ci ñaar yu ndaw rek la ko yàlla créé lisaanuhu wa jinaanuhu làmmiñam ak xolam nga laal làmmiñ muy tahaara al xisiya nga laal xol muy tahaara al maanawiya masha allah waaye bu ñu nee al tahaara al maanawiya muy al tahaara al baatina ba tey mën nga ko wax mooy tahara la boo xam ne nit ki dafay fexe ba laab min ashirk ci bokkaale nit ki da fay fexe ba label ci biram bokalé bokalé du bok ci mom waye moy yàlla aussi du bok ci mom ndax yooyu yëpp fay nek luy tilimal biru doomu adama ci walu ruh waye wala ci walu xol yi nga xamne mom la yàlla di euh jappé nit ku bax wala nit ku safaan moy ila man atallah bi qalbin salim pour nga am xol bu set nak faw da ngay jema label sa bop ci walu bir waye da ngay fexe ba do am reuy ndax reuy ci ru yàlla la fexe ba wétal sa borom subhanahu wa taala top yàlla waye selal ko wolu ko waye mana a tuub di delluwaat ci sa borom subhanahu wa taala macha allah dafa am lu ñuy tuddé al amradul khulub al amradul khulub yoyu mom so fexé ba مجتي لملنا العقد والحفظ والرياء والكذب والى والى, غير ذلك يو يوسف خيب مجتي رك يو امغا الطهاره المعنويه الصالحه ما شاء الله اما سوفيك انك الطهاره الحسيه موي دانك لي نيو ديفلوبي كي ديبي ايميشن بي موي لو ملني لاب موي جابو waaye lu mel ni sangu mhm. lu mel ni tiim su fekkee ngant dafa am mhm. waaye lu mel ni sangu kadalika mhm. macha allah macha allah oustaz Babacar mu mel ni agsi nañu fi ñuy yëkkatee jotaay bi waxtaan bi am na solo leer na am na fasaaxa allahuma la aduru yàlla na yàlla yokk xam-xam bi tabarkel ko ci bijaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni li ñu tënkoon bëggoon ko waxtaanee ak oustaz jotuñu waxtaanee point yëpp waaye nag mu mel ni fi ñu yëkkatee jotaay bi agsi nañ fi bëggoon nañu mu expliquer ñu naka lañuy jàppoo ndax jàppkat dafa mel ni dafa wuute waaye wuute bi bariwul yenn saa yi da gis nit koo xam ne dafay masaa boppam def ko ñetti yoon nga gis koo xam ne moom benn yoon rek la koy def nga gis tamit koo xam ne dafay raxas noppam ay yoon nga gis koo xam ne benn yoon la koy def loolu daal bëggoon nañu oustaz Babacar ci émission wi mu indil ñu ci ay leeral waaye mu mel ni rek dañu koy tënk foofu ba ci suñu beneen jotaay ak beneen invité incha allahu rabbi mbokk yi ñi ngi nuyu ñëpp nag di ziyaara ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd wi ñu jógee mhm. di bal ñëpp xaq te di balu ñëpp xaq mhm. di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor mhm. ak mboolem xeetu jàmm yàlla yiñ ci def di nuyu borom kër gi di sëriñ Babacar ture ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp suñu caméraman Yaqub ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko ziyaara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi. waaw ah, macha allah. xanaa am mbégte contentement bu baax a baax ci jéem a euh, def daawa ci charia al islamiya. ndax euh, su fekkee ne yow. yàlla daf la dimbale boole la kilifa yu mel ni yéen. ngeen yuy suñuy kilifa di suñuy mag di suñu royuwaay. teg ñu ci yoon. waaye xamal ñu lépp lu ngeen xam loolu itam sant yàlla la allahuma la adur ñaanal leen yàlla defal leen tawfiqul ilahiya mbooleem sunu mag yëpp di sëriñ Moustapha sëriñ Mansour waaye sëriñ Babacar sëriñ Cheikh macha allah di yàlla na leen yàlla kàttanal dëgëral leen ak sunu wayjur yëpp amiin incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon nag mbokk yi mi ngi noonu ngeen xaar ñu ci beneen numéro ci beneen jotaay بزرگ جمع إن شاء الله ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته